di rek li utale njañu bayfaal yi ak rasta doomi jamaïque yi mu mel ni nag bopp yi dañoo nuroo ci gis-gis waaye sabab gi ute na lool li ñu ko tax wax nag mooy ni waa Touba di ay bayfaal nee nañu nag ñoom seen njañ fa mu jugee bokkut benn yoon ak fi nga xam ne foofu la rasta doomi jamaïque yi jóge sunu naataangoo ñu fa toogal nag di Pape Sayer Mbaye ak Bekaay Ndiaye ñoo ngi si defal ab reportage fukki fan ak benn ci weeru wu jot ñuy fàttaliku waykat bu jamee bi di bopp Marley réewum Sénégal bu fekkee des suñu ginnaaw di màggal jëmu jële di bopp Marley wuuteeg lool li ñu nemmeeku ci dëkk bu sell bii di Touba. file ñu bëri bëri gis ne Bob Marley du seen royukaay ba ñu war ko màggal. dañoo jéggaani loo xamante ne ñun moomuñu ko. parce que loolu mbiru jamaïcain la mbiru américain xëy na ñoom ñi koy sentir loolu seen critique la boo fa demee da ngay gis mag ñoo xam ne dañoo bijjaaw amuñu leneen lu dut loola lan gëm kon ñu ñi nga xamante ni ñun dañoo am yeneen référence di dund leneen waru ñoo jël Bob Marley def ko référence ba tax ñu koy màggal ci ci ci bés bii daal. être humain la comme yow buy dund yàlla sàkk ko fii si àdduna nekkoon si benn mouvement boo xamante ne am na combat bu mu doon def. man ma ma ma nawlu ko lool ci benn combat parce que def na fi ay libération yu bari ci côté mental rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ Tuubaa rek mooy moo fi jaru màggal ñenn ñu yewoo ci dëkk bu sell bi di Touba di xam ne ni réewum Sénégal bëri na fi ay kilifa yoo xam ne euh, seen jëf waroon na mën a taax ñu jagleel leen lu ëpp bés bi nga xam ne moom la ñu jagleel euh, Bob Marley. di di jël dat yi nga xamante ni bii ñun ñu baax ñu fi nekkoon ci la ñu ñibbee su ñëwatee ñu di ko ñu di ko ñu di ko fàttaliku muy njabootu Serigne Touba gi seexi Serigne Touba nit ñu baax ñi nga xamante ni ñu ngi fi woon bis yi ñu làq woon ñu jàpp bis yooyu bis bu ñëwatee ñu di ko fàttaliku. ñi leen di rastafaay di ñuy roy Bob Marley ak ñii di Baye Fall ñu bëri bëri di méngale seen rasta monte yi bu ñu sukkandikoo ci kàddu ñenn ñoo xam ñu ngi yeewoo ci dëkk bu sell bi di Touba seen rasta yi li du dara lu ñu bokk. njañi Baye Fall yi du nuroowul dara ak njañi euh, jamaïcain yooyu njañi bay Fall yi li ko wund mooy dañuy liggéeyal Serigne Touba ba amuñu jotug watu amuñu jotug def dara ñële nag genre religion lañ ko def ak lu ñu leen di xàmmee ba. Sénégal bari na ci ñoon royu ñu njañul maam Cheikh Ibrahima Fall waaye njañu njañul Bob Marley ak ñu niroog euh, moom moom la ñu roog borom njañu ñooy taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall daabal maam Sey Ndiaye borom rasey ñooy Bob Marley mais amaana ñun ñun dunduñ Bob Marley de dunduñ Bob Marley on du Bob Marley ñun Bambara. bu fekkee fu bëri ci àdduna rawatina file ci Sénégal màggal nañu fa fukki fan ak benn ci weeru mai di bés bi ñu jagleel Bob Marley Touba Mbàkke bés bi li ñu ci bëri bëri yégaluñu ko seen yaram. Pape mu mel ni kon leer na Njaañ ute na ak Rasta.